aaya ji tegu ci dafay wane ne sayduna muhammad sallallahu alayhi wa duhut moromam benn yonantu yonantu boo waxati bu dul yonantu bi miraakalam kalamba wala miraakalam ya yàlla da koo def ci biti jëmmam ya yonantu bi nag mboole mira yi lépp yàlla da ko installé ci jëmmam ja loolu la ruuxul bayaan wax boo jëlee ku mel ni yonantu yàlla saalixu kaawteef gi gën a rëy gum feeñal nitam ña moo doon gëléem ga ñaan gim ñaan yàlla montagne ba jur gëléem jaral bi ko juraat doom ju toll ni moom mu a leen kon nag naaqatallaahi wa suqyaaha xam ngeen ne boobu miracle nekkul te jëmmam ja lii ci jamaat la nekk muy montagne ba lii nekk ci xayawaan muy gëléem ga boo jëlee yonentu yàlla Isa miracle am ba gën a rëy ci jamaat la woon mooy ci aw xet boo xam ne bu ko sànnee mu soppeeku jaan bu ko téyewaatee mu nekk xet bu ci wamaa tilka bi yaminika yaa Muusa qaala hiya asaaya kon loola nekk na ci biti jëmmam ja boo jëlee yonentu yàlla Suleymaan miraakalam ba gën a rëy mooy xorondong wa dégg kàddoom nga fu sori di wax ak moom ci eh, korondong waa lam doon wax moromam ma la moromam ya laa yaxtimannakum Suleymaan wa junuuduhu minal jinni minal jinni wal insi wat tayri fa hum yusaxuuna ba mu wax ak moom la mu wax ak moom ba ci fa tabassama daaxikan min qawliha loola tamit lépp ci biti jëmmam jëla yonentu bi nag mbooleem mayam yi miraakalam yi mujisaatam yi yàlla da koo installé ca jëmmam ja jëmmam ja lépp burhaan la moo tax yonantu bi sallallahu alayhi jëmmam ja boo ko doon jël di ko desaate di ko di ko di ko teqale nga koy maanaam teqale lépp lay la boo jëlee bëtam ya lay la bu daan rukkoo wala mu sujjoon ñam daan jiite léegi léeg njëkk ko siggi mbaa ñu njëkk ko sëgg mu ne leen laa tasbiquuni bi rukuuci wa sujuudi fa inni araakum min xalfi kama araakum min amaami kon bëtam yàllaay la ndax la muy gisee la ci kanamam la gisee la ci gannaawam tekkiwut dafa amoon bëti gannaaw waa gisab gannaaw la amoon gis googaa tax sax yàllaa ngi koy tagg ca gis ga ca bët ya ne maa saaxal basaru wa maa taxaa naka noonu timit ba kanam bi lay daana toog ca màkk ne fii ma toog maa ngi xeeñtu Euh, buy guy bàyyeekoo ca wàllu yaman te booba mu ngi doon junji nitu yàlla ku mag kuñ daan tuddee uwaysul qaraniyu daan wax ne inni la ajidu nafasa rahmaani min qibali yaman kon ku mën a toog tabaarakallaahu ca madinatul munawara xet ak nitu yàlla gu nekk ca yaman di la xeeñ a sa bakkan yooya neex na waaye la ko neexal nag yàlla la moo tax kon bakkanam ya neex na mu daan wax loolu waaye làmmeñ wa lay la làmmeñam wa dëgg rek lay wax du wax lu dul dëgg ci yàlla tagg na ko ci wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa gis nga ko tamit taflitam ya lay la jaabir moom ci boppam mu ne ba ñu yonantu bi digalee ñi gas xandax mu ne nag euh, kenn ci yéen bu mu denc lim dencoon ci ak mooñ andi leen lépp ñu andi ko mu tafli ca yàlla barkeel tafli wa mbooloo mu dul jeex lu mat junne nit lekk ca ba bàyyi soppandi ta te la fa ne woon dara wàññeekuwut ca kon kooka taflit wa la bi nekk lay tax xataadatu lu bëtam ba buqee ko mu ñaan tafli ko ca bu sëy nee na xattaa mamaati naj laawu lim nekk lay tax Ali ibn Abi Talib keroog ba mu wànnentoo ca xaybar mu ñaan tafli ko ca yëkkati drapeau ba jox ko ko mu xeexab murhab ray ko ti di tat tase ja tafli tam wawa moo ko may loola gis nga ko timit sallallahu alayhi wa sallama loxoom la bu ca masaana sànni moom mooy sanni de waaye yàllaay def jeexitalu saan wa moo tax mu ne ko maa ramayta iz ramayta walaakinna laa ramaa xam nga ne lii saan doomu aadama mënu ko li loxo ba nekk lay tax keroog ba dara mu jël xeer teg ko ci la mu sàbbaal ñëpp di ko dégg teg ko ci loxol Aboubacar mu sàbbaal su ko defee euh, mu teg ko ci loxol Omar Xataab mu saabal mu sànni leen ko ne shaahatil wujuh baaraamam yàllaay la keroog xaswatu tabuuk ndox dafa ca doon ca diggante baaraam ya saaba ya di ca naan duy ca seen mbuus sangu seen janaba fekk ña nga mar bay jokkalante ab xoox ab tàndarma ab tàndarma bu kii eh, muccoo jox moromam ma léeg-léeg nga jox sa moroom jàpp ne moo la gën a moo la gën a moo gën a mar dënam ba laay bu daan julli da ngay dégg dënam ba di fuur di yëkkatiku di di di di def bur wi ba mel ni kawdir gu ñu toggee yàpp ñëpp di ko dégg xolam ba lay la ndax moo tax euh, dund na ba génn àdduna xol ba mosta nelaw ba tax na moom daana wax ne maanaam euh, yanaamu tanaamu aynaaya wala yanaamu qalbi xolam ba mosta nelaw xol booba moom la alquran ne maa kasabal fuaadu maa raa ndax ruuxul bayaan day wax ne nit ku nekk xolam dafa am lu jàkkaarloog rooxu ga am lu jàkkaarloog bakkan ba la jàkkaarloog rooxu ga moo tudd fuaat la jàkkaarloog euh, bakkan ba moo tudd sadru moo tax ba muy tudd fii ci yonent maa kasabal fuaadu maa fële nag euh, ba muy tudd fii suduuri naasi minal jinnati wan su ko defee kon yu waswisu fii suduuri naasi minal jinnati wan naas dënn ba lay la moo tax alquran ne alam nashrah laka sadrak rooxum ga lay ba ba ba xol ba lay la ba tax jibril wàcce ci lam ca wàccee ne nazala bihi ruuxul amin ala qalbika nazala bihi ruuxul amin ala qalbika demeet jëmam ji doon waaye ma tax yàlla jël jëmam ji yëpp ko cër par cër tudd na loxo ba ne laa tegaal ya daka maglulatan ilaa unuqika dégg nga de tudd na tamit tabaarakallaahu euh, doq ga ndax foo wax na ma ilaa kon foofa loxo ba ak doq ga la bol tudd tudd na gannaaw ga alladi anqada zahraka tudd na dënn ba alam nasrah laka sadraka dégg nga ko tamit tudd na tamit xol ci maa kasabal fuaadu ma raa ak nazala bihi ruhul amin ala qalbika tudd na tamit xarxaramam bu yanji bu rafet ba ci qad nara taqalluba wajhika fi samaa'i falannuwalliyannaka qiblatan tardaaha demet noonu nga koy jëlee tànk yàllaay la bu masaa a dox ci beeñ day dëgër mosaan a dox ci kekk dafay mujj nooy ndax beeñ ba day wax ne su ma nekkee sama melokaan wii ba pakastalu sama kaw yàlla teg ma mbugal mu gën a métti kee tamit ne ah, su ma nekkee sama dëgëraay bi ba xuri tànkam ya boo lëggee yàlla teg ma mbugal mi gën a métti moo tax kenn ku ci nekk dafay sol moromam moromam ma maam xalifa wax na ko wa in macha ala saxri saara saxru kattiini yàlla yónni ko moom yonantu boobu def mujisaatam yépp te jëmmam ja yeneen yonantu ya seen mujisaat ya yàlla da koo def ci seen biti jëmm ja moo tax mu ne yaa ayyuhan naasu hee yéen nit ñi xadd jaa akum sa dëgg-dëgg dikkal na leen burhaanun lay min rabbikum bu tukkee ko seen borom wa ansal na wàcce nañ comme jëm ci yéen nuuran leer mu biinan ngay aji biral alquran la tuddee fii leer ndax dafay leeral xol yi comme ni leer di leeralee lépp lu lëndëm amal la si naal ñi nga xam ne amanoo gëm nañ bi laay ci yàlla waxta sa moo ñu ŋoy bii ci yàlla wala waxta sa moo ñu ŋoy bii ci alquran yëpp mën na koo jamtalu fa sa yu duqilum na tàbbal leen fi rahmatin ci yërmande min hu bàyyi ko ci yàlla wa fadlin ak ngëneel wa yahdiim dana gindi leen ilay jëmee leen moom leen ca moom moom yàlla si dana leen dana leen gindi jëmee leen ci boppam fu mu leen di gindi siraatan ci yoon mustaqim bu jub kocc kon gis nga ko alquran moom la tuddee nuur wa ansalna ilaykum nuuran tuddee na alquran leer ndax dafa nekk sababu tàbbik leer ak gëm yàlla ci xol yi kom ni mu ñëwee di lumière bu boo xam ne ci lañ moo ñuy biralal xatt yi loolu la ruuxul bayaan wax wa sumiya alqur'aanu li kawnihi sababan li wuquuci nuuri alimaani fi alquluubi wa annahu tatabayanu bihi alahkaamu kama tatabayanu binnuuri alacyaanu looloo tax mu waxee ko noonu ci moom la ñuy birloo xatt yi ni ñuy birloo ak gis ci leer yi su ko defee yàlla moomu dana mu gindi leen jëmee leen ca boppam ngeen mën a soobu yoon wu jub kocc te mooy yoonu siraatal mustaqima wa yonantu ya sóobu kon aayaat aaye jooju ñu jàng loolu la ci suñ borom wax aaye ji tegu ci nag yastaftuunaka quli laa yuftikum fil kalaala aaye la jooj suñu boroom dafay ñëw di ci mottali mbiram miraas fi ñu jàng ca nisaa commencement ba ci yusikum laahu fi awlaadikum tuddoon miraasam ci ay waajuram tuddoon na waajur ci ay doomam tuddoon na miraasu jëkkër ci jabar tuddoon na miiraasu jabar ci jëkkëram tuddoon na miiraasu mbokk ci wàllu ndey buy kenn góor gaak jigéen nga ñëpp a ca xem sudus buñ xumbee sulus muy fahum surakaaw fii sulusi fii nag dafa ñëw di mottali loola ca wàllu miiraas moom la ca des te mooy nit ku dee amul ndey amul baay waaye moom daal menn mbokk dong la bàyyi bu fekkee kamu mu bàyyi góor la dana la ko wax su fekkee kamu bàyyi jigéen la dana la ko wax mag ñi daan ko tuddee néewab càppaacoli ndax kalaa boroom xam-xam yi wuute nañ ci waaye la gën a wér daal mooy ku bàyyi wut aslu bàyyi wut furoo bàyyiwul usul bàyyiwul furoo bàyyiwul cosaan yu koy donn bàyyiwul tabaarakallaahu ay bànqaas yu koy donn moom daal ña ngi koy mën a donnoo rekk ci mbokk bàyyiwul sax jabar bàyyiwul sax bu dee jigéen jëkkër lam bàyyi daal mooy mbokk kooku mooy néew bu tumu moo tax mu ne yastaftu naka danañu sàkkoo danañu sàkkoo fiti loola mooy laaj la ci mbiram néewab capaacoli xul waxal ne allahu yàlla yuftiikum dana mu fitaleen fil kalaala ci néewab capaacoli lan la num fitee mooy inim re un neem deena maanaam asicam bu dee xeeta lay sa lawoo déet di ko ñeexal wala dun doom waaw su fekkee dafa dee bàyyiwul doom mu fassiru ne tofal ca tamit ne bàyyiwul waajur kon xamul usul xamul furoo wala hoo aji nekk la ñeel ko uxtun menn mbokk mu jigéen mu bokk ak moom ndey baay mbaa ñu bokk baay fa laha aji nekk la ñeel mbokk mooma nisfu ma taraka genn wàll li nga xam ne bàyyi na ko moom néew bi genn wàll ga lay donu jigéen la mënta jeexal alal foofa bu ko defee nag waxuwa moom mbokk moomu nag su fekkoon ne moo taxaw taxawaayu mbokk mu jigéen male a yërisuha dana donn mbokk ma lépp lay donnu su fekkoon ne nag ki dee jigéen la ki koy donnu di góor moom ku góor kooka lépp lay donn waaye su fekkee nag ki dee ku mën a donn waaye ki koy donn jigéen la su boobaa genn wàll ga dong lay mën a donn mënta donn lépp de mënta jeexal alal kañ lay doonu lépp nag moom mbokk mu góor ma mooy ilam yàkkun bu nekkut lahaa di ñeel mbokk mu jigéen moom a dee wal dun doom xamul doom tabaarakalaahu bu xamoon doom ju góor moo mbokk ma du xamati dara su amoon mbokk mu jigéen su boobaa kon bu mbokk mu jigéen ma jëlee cëram ba la ca des ñu door koo jox mooy kon doom gu jigéen ba bu jëlee cëram ba pare la ca des ñu door koo jox mbokk mu jigéen mi wala ñu jox ko mbokk mu góor mi la ca des su fekkee nag mbokk ga duhul ci wàllu ndey ak baay ci wàllu baay wala waaye ci wàllu yaay rek la suy kenn góor la jigéen la nañ ko jox su du sa dem mën ta jeexal alal su fekkee ne xumb eh, nañ muy ñaar jëm kaw dañ leen di boole fulus ba buñ koy séddoo nag góor ak jigéen a ca xem képp kenn du xëppale sa morom moo tax mu ne foofu surakaawu fii fulusi loolu waxoon na ko ca commencement wu bopp saaru nisaa yi kon ba muy kenn leeral na ko ci góor moo koy doonu lépp su dee jigéen la genn wàll ga ci sartaab nag néew bi xamul doom xamul baay fa in kaanataa buñ nekkee nag ñaari mbokk ya is na tey ni di ñaar ñaar lañ ñoo xam ne eh, dañoo bokk ci wàllu ndey eh, ak baay wala ci wàllu baay te loolu moo daloon jaabir kon fa lahu ma aji nekk la ñee leen ñoom ñaari mbokk yooya sulusaani ñaari sulusiya mi maa taraka ci la nga xam ne bàyyi na ko seen mbokk mi dee di góor wayin kaanoo buñ nekkee nag way doon ña ixwatan di mbokk yoo xam ne rijaalan ay góor lañ wani saan ak i jigéen fa li zakari aji nekk la ñeel góor mislu xasi usayni kéem cëram ñaari jigéen lii nag mooy atte yi moo tax mu ne yu bayn dana biral laahu yalla kom ñaal leen ci sariyaam bi dana leen an maanaam seen biram diina ji te di loo walis ngeen yi mën a sànku walaahu yàlla xalimun kon la bi ko ngeen ci lépp lëf kon su fekkee kii dee bawul ndey bawul baay bawul doom bawul sët bu koy donu ñaari mbokk la bàyyi yu jigéen ñaari mbokk yooya la ñuy jox sulusaani bi buñ xaajee xalal ji ñetti xaaj ñaari xaaj lañ leen di jox tañ dem mënuñoo jeexal xalal boo xamul kenn ñu jël xarala ji delloo ko ca waa euh, euh, maanaam meenam ma kenn ku ci nekk ñi wàccee ko wàccee waaye ko ko booleeg néew bi moom la sëñ Aliou Sakho fa dafuhu li zawil arhami qad qubila su fekkee baytimaal amu fa wala baytimaal am na fa waaye waa lii ba ko méngoo euh, maanduhut kon fa dafuhu li zawil arhami qad qubila su fekkee nag néew bi dee amul aslu amul faru ki mu bàyyi ay mbokk yu góor ak yu jigéen ci wàllu ndey ak baay wala ci wàllu baay kon nag góor ñaar jigéen benn ba mu jeex kooku kon àttee jeex na kon ah, néewab kalalaangook ngoog ci bi mu dee bàyyi menn mbokk mu jigéen néewab kalaalaa ngoog ba mu deeyee bàyyi menn mbokk mu góor néewab kalaalaa ngoog ba mu deeyee bàyyi ñaari mbokk yu jigéen néewab kalaalaa ngoog ba mu deeyee bàyyi ay mbokk yu góor rakk yu jigéen kenn ku ne sa cër ba wax na ko ci aaya ji mu tëjee ko te mi ngi wàcc ci jaabir dafa génnoon àdduna dafa feebar yonent bi ñëw seet si ko xam na alal te amul baayam dundul dooma amul doom bu ko mën a donn su ko defee nag mu laaj yonent bi nu may def sama alal sama alal gi su su ma dee nu ngi koy donnoo aaya ja wàcc leeralal ko ko si mbiram jaabir mu génn àdduna te laysa lahu waladun wala walidun su ko defee kon nag loolu la ko ci alquran wax leeral ko mu ne mu ne moom jaabir na yow yonantu dama fee nar a dee bàyyi fi xalal ju bari xaw ma doom ndax dama koy saraxe yonantu bi ne ko déedéet di ah xanaa booy saraxe nga saraxe sa genn wàll ga waaye nag bul saraxe lu gën a bari genn wàll ga ñenn ngeen dañ ne ko sulus nga mën a saraxe yàlla nag moo ko defalee xeetu yonantu bi pour ñu jangee ko seen damu dami dund gi ak jangee ko tamit ak yokkee ko tamit seen a sulus mu ne ko sulus ba bëri na di mu ne ko nga baxi say way donn ñu ñu xoomal ngir liñ donoo ci yow moo gën nga baxi leen ñi ñàkk bala ñoo dund dañoo yalwaan nit ñi kon aaya jàngoog moom la yàlla tëjee suuratu nisaa yi lépp lu ñu ci yàq yal nañu ko yàlla jéggal luñ ci xam yal nañu yàlla may kartan guñ ko jëfee mu nangoo ko moom ci ñim toll. suuratul maa'idati lii mooy saaru maa'ida tuddee na ko suuratul maa'ida muy tuddee lenn ci turu lépp ndax bàyyi baata maaidatu bi nekk ci biir saar wi allahuma anzil alayna maaidatan min as-samaa'i ji yonentu yàlla Isaa ñaan ci biir saar wi mu nekk wenn yoon woowu mu ñëw ci moo tax mu tuddee ko saar wi muy tuddee lenn ci turu lépp saar wi nag madaniyatun la ulamaawu tafsir bépp aaya walla saar wu wàcc gannaaw bi yonantu bi gàddaayee donte sa suufu màkka la wàcc tamit madaniyatun lañ koy wax comme ni nga xamee ne bépp saar wu wàcc njëkk yonantu bi di gàddaay donte ca suufu madinatu munawwara la wàcce woon sax makkiyatun lañ koy wax askanee ko ko saar wi am na ci loo xam ne ma nga wàcc ca suufu màkka ca ajak yonantu tuba di ajam gu mujj gi nga xam ne moom la mos a aj gannaaw biñ ko yónnee ñu koy tuddee xajatul wi daa saar wi nag boo ko xoolee dana nekk téeméeri aaya ak ñaar fukk su fekkee da koo lim ci lim waa kuufa soo ko limee ci lim ak waa hijaas téeméeri aaya la ak ñaar fukk ak ñaar soo ko limee ci lim ak waa basra téeméeri aaya la ak ñaar fukk ak ñett boo doon calculer baatam yi ñaari junne baat la ak juróom-ñetti téeméer ak ñeent loolu la ëmb ci ay baat moom saar wi nag yonantu bi jàng na ko ca xajatul widaa ba mu ko jàngee mu ne yee yéen nit ñi saar wi di suratul maayida bokk na ci saar yi mujje wàcc moom yonent bee wax kon lépp lu ci yàlla daganal daganal leen ko lépp lu ci yàlla xaraamal xaraamal leen ko loolu ma wax la mi ngi ci tafsiru Qurtubi boo demee ci tamit ca téere bu ngi tuddee Mustadrak xaakim liggéey ko danga ko ca fekk basaar saar yu wàccee yonentu bi ne yaa ayuhan naasu inna suurata almaidati min axiri min axiri alqurani nusulan fa axillu xalaalaha wa xarrimu xaraamaha saar wi ba muy wàcc da ko fekk mu ngi ci kaw gëléem gëléemam gu am doole googu waaye gëléem gi àttanut kàddug yàlla gu diis gii di wàcc ci yonantu bi ndax yàlla ne ko inna sa nulqi alayka qawlan thaqilan ba mujj yonantu bi dafa mujj wàcc gëléem ga kon nga xam ne alquran lu diis a diis la saar wi nag boo ko seetee dafa def ak munaasaba saaru nisaa yi wi ko jiitu woon ndax suuratu nisaa yi dafa làmbooxoon ay pas-pas yii dafa ko leeral nàññ yii da koo déggee dañ koo déggee ci yam li leeral yu leer ya nekk ci suuratu nisaa sëy ca la bokk te waxoon na ci affaire yi sëy fankihu ma taaba lakum mina nisaa yi yam leeral wàllu can ca la bokk waatu nisaa saduqaatihinna nixlatan yam doon leeral wàllu ngëñ ak kóllërante kóllëre ca la bokk yéen ca déggee nag mu làmboo ko testament ca la bokk bala ngaa dee nga bind wala nga wax sa testament li nga bëgg ñu doxal sa gannaaw ndénkaane ca la bokk wakiil muy ak wakaalatu ak ijaaratu yooyu yëpp déggee nañ ko ci saaru suratu nisaa yi suratu nisaa yi tamit commencé woon na di tàllal xaraam ak sàngara waaye waxu mu carrément leer ne sàngara la xaraam na waaye nag saar wii di suratul maayida nag moo ñëw mottali loola mu tàllaloon ca pas-pas ya moo ñëw tamit mottali loola mu tàmbali woon ci xaraam ak sàngara kon saar wi dafa ñëw ngir mottali saar wi ko jiitu woon li hëpp ci saar wi dafay dàggisanteeg yahood yi ak nasaraan yi ak tudd lenn ci munaafiqiina yi seen ak mbon nga ak mushrikiina yi te loolu tamit amoon na ci suratu nisaay bii dafa ñëw gën koo leeral gën koo farañ fànce ba tey tamit boo gisee suratu nisaay jiitu sóoratu maayida door a ñëw bokkuñ duñ leen hubbee kon dañ say déggee ne bokkuñ tamit jamono juñ wàcc sóoratu nisaa yi mi ngi ko hubbee yaa ayyuhan naasu taqu rabbakum loolu foo déggee yaa naa naas rek ñaareel ah, bu dee saar màkkiyatun la loolu waaye nag bii mi ngi ko ubbee yaa ayyuhal ladina amanu loolu foo ko dégg rek bu dee saar wala mu def aaya ma maanaam madaniyatun la kon nag tanaasu googu nekk ci seen diggante tax bi saaru maayidatu wàcce doonte mook saaru nisaa yi seen distance bi soree na yonent bi joxe ndigal ne nañ ko dugal ci gannaaw suratu nisaa yi ndax nit niroo googu nokk ci seen diggante saar wi nag di suratu maida dana jàngale ci wàllu pas-pas yi moo xam lu ñu fas ci suñu digganteeg suñu borom la wala ñi fas ko ci suñu digganteeg suñu morom la suñ digganteeg suñ borom lépp luñ fa fas yàlla ak ñuy bëgg ñi matal ko suñu digganteeg suñu morom luñ ca fas yàlla bëgg na ñi matal ko suñ digganteek suñ bopp luñ ca fas yàlla bëgg nañu matal ko imaamu Baxawi yu dafa daan wax ne saar wi di suratu maida làmboo na fukki xatte ak juróom-ñett loolu nekkul ci wenn saar dul moom yàlla xaraamal na ci indi na ci fukki xatte ak juróom-ñett fukk yaak benn yëpp dafa xaraam fukk yaak benn yooyu fukk lu ñuy lekk la benn ba bu ñuy jëf la yu xaraam ya ak xatta ya bokk na ca gàtt boo xam ne dafa laxasu ci buum moo xam moo ca laxas boppam wala yaa ko ca laxas wala mu dugg fu mu mënta génn mënta génn mënta avancé nekk fa ba dee su boobaa kenn du ko lekk donte ñoom dañ daan jëlab gàtt xeew ko xerindi xeewin ga gàtt ba nekk fa di cadd cadd yi ba dee ñi lekk ko yàlla ñuy wax xaraamal loolu ki suratul maayida dana ci wax gàtt boo xam ne dañ koo sadd yet walla xeer wala bâtiment daanu ci kawam wala weñ wala lu mën a doon rek moom lañ ko sadd mu joxe ca dee kenn du ko lekk ñoom nag buñ bëggoon a lekk ab gàtt ñu jël seen xet di ko tiim di dóor ñii di sànni ñi jël tamit mool di ko ko sànni ba mu dee ñi lekk ko gàtt boo xam ne dafa bàyyeekoo fu kawe lu mel ni montagne wala étage daanu dee kenn du ko lekk walla mu bàyyeekoo fu suufe jëm fu gën a suufe lu mel ni bàyyeekoo ci buntu teen bi daanu ci biir teen ba dee kenn du ko lekk ak gàtt boo xam ne dafa accidenté ñi mbëkk ko doon mbëkkantee moromam wala oto ñëw mbëkk ko wala moom mu mbëkk ci kaw dara jaare ca dee kenn du ko lekk bépp gàtt boo xam ne ay gar ñoo ko songoon ba commencé lekk dara ca yàpp wa mu jaaree ca dee kenn du ko lekk yile la yépp nag mu setti istisna wu mu tasil mën na koo doon bu la neexee mu nekk tamit mun xati ñaar yépp mën na foofu la maa waxee istisna wu mu tasil rek lañ setti dafa bokk ci lañ ko settee buñ ne mun xatir nag lañ setti bokku ci lañ ko settee ñaar yëpp nag aaya ji jamtalu na ko sett gi jamtalu na ko su boobaa su fekkee ne yii ma wax yaa ñëw nga rendi te fekk nga muy dund ba nga rendee yëngatu na deret sotteeku rek daga na nga lekk loolu saafi yu gëm imaamu Malik ne na fekk ba ngay rendeeg xam sax xeggul ci yaxam digg gannaaw ba bu dammee jële ko ci kenn ci ñeent yi ma tudd wala juróom yi kooka moom donte fekk nga muy dund tamit rendi mu dee ñàkk rendi mu dee la kenn du ko lekk yuur ga bu tasaaroo donte fekk nga muy dund nga rendi ala kulli haal donte deret yool na mu yëngatu tamit kenn du ko lekk bu tudd ya juróoyku nga nga rendi na deret génn tamit kenn du ko lekk kon Maalik noonu la koy limee ba maqaatilul xam say jeex danaa la ko wax su ma duggee ci saar wi Saafi'i yi nag moom dafa ne boo fa fekkee rooxu daal nga rendi mu yëngatu rek lekkal kon yooyu bokk na ci yim xaraamal ci saar wi jéem a xam lu dara di ko jaaree ci seet muy ay pettaaw ay bantak ndox meek ndax booba ñoom juróom-ñaari bant la amoon di ca seete seen seet ya ñu nekkoon ca Kaaba ga yore ko tey nag moo remplacé pettaaw yi remplacé seetu kurus yi bëri remplacé ndox mi ci seet ya remplacé tabaarakallaahu yu bëree bëri yu ñuy seet te kenn seetloowul la ko te boo ko gisee tamit mënoo ca dara moo tax kon tamit yooyu dafa xaraam dana jàngale tamit ci saar wi ne nit ki mën naa rëbb bu ànd ak xajam wala xoobam gannaaw bi mu ko ko jàngalee ba nga xam ne bu ko xiirtalee ca rab wa mu dem bu ko toogloo mu toog ba muy dem mu ne bismillah su boobaa bu jàppee mën na koo lekk dana ci jàngale tamit booy boo amoon fetal wala nga yore sab xeej wala sab fet diir ko rab wa ne bismillah mu jam ko mu dee danga ko mën a lekk boo fekkee muy dund rendil boo fekkee mu dee tamit sa bisimilah ji rendi xale na ko dana ci jàngale ne rendik jullit ñi dagan na jullit ñi daganaale ahlul seen ak rendi jullit ñi waaye tamit soxnay ahlu kitaab ya seen jigéen ñi cay gor ñun jullit ñi mën nañ caa takk waaye ñoom nag mënuñoo takk suñ jigéen ñi dana ci jàngale soo jógee nam ma dem ci julli fekk yaa ngi yore janaba sanguma soo amul janaba nga tiim fas yéenee aj toj mu mag mi nekk ci yow soo ameewul janaba nga yore ndox jàppal soo yorewul janaba te amoon ndox tiimal dana ko ci jàngale dana ci indi àttaya sàcc bu góor ak bu jigéen buñ sàccee dagg leen seen loxo ya dana ci jàngale ne bu leen rëbbati fekk yéen a ngi xarmal ku xas xarmal tereen nañ ko mu rëbb rab woy ko jug jéeri su ko defee dana ki jàngale tamit bahira toog saayiba toog wasilatu façon gëléem yooyu ñu daan def di ca ab xatte bu ñu daan teg seen bopp kenn tegul leen ko dana ko ca wax dana ci andi nag aaya ju xaw a tënku ci firi muy ida xadara ahadukumul mawtu foofa ca mu mujjëg daanaka saar wa dana ko ca wax kon saar wi fukki at ak juróom-ñett imaamu Bagawi yi nee na moo nekk ci saar wi te loolu néewul ci waneen saar ci biir atte yooyu am na ci fukk ak benn yoo xam ne dafa xaraam fukk yëpp dañ koy lekk benn ba dañ koy jëfandikoo te mooy wàllu seet wa an tastaqsimu bil aslaam yi ci des nag yëpp yu xaraam la yu ñuy lekk boobu nag moom bu ñuy jëfandikoo la kon loolu mooy saaru nisaa yi yàlla ne bisimilaay sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xewalaakoon bépp mbindéef ci àdduna bi arrahimi buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira yaa ayuha alladina ee yéen gaaye nga xam ne amanoo gëm nañu alquran aw foo na matal bil uqudi ci pas-pas yi moo xam pas-pasab kóllëre bu ngeen fas la ci seen digganteeg seen borom wala muy pas-pasab kóllëre bu ngeen fas seen digganteeg seen morom mbaa muy pas-pasab kóllëre bu ngeen fas ci seen bopp ku mu ci ñetti pas-pas yi man yàlla maa ngi santaane ne na mat kóllëre yooyu bokk na ci wattu xalal yi lekk li nga moom du mooy loo moomut wattu askan yi bañ koo jaxase dugal ca lu ca bokkut mbaa génne ci lu ca bokk wattu diine ji wattu jëmm yi wattu làmmeñ yi wattu ngëñ yi yi la yépp ay pas-pas la yu ñu fas suñ borom nañ ci góor góorlu fexe koo matal su ko defee kon nag pas-pas yaa ngóog yàlla ba muy fas ak ñun kóllëre yi dafa yàgg ba muy wax ne wa iz rabbuka min bani aadama min zuhurihim zuriyatihim wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qaalu balaa nga xam ne booba roox yi ñoo fi ne waaye roox yi solo gu ñu woon jëmmu yàlla fas ak ñun lañ fas ak ñun ñu ne ko waaw kon buñ ñëwee fii lañ fasoon ak moom nañ ko matal ci gëm yàlla bu baax gëm sayduna muhammad gëm téere bi di alquran li yàlla digle ne mooy li dagan ñi def ca lañ man donte mënuñ lépp li yàlla tere ne mooy li xaraam ñi bàyyi lépp su ko defee lu mel ni karta lu mel ni sàcc lu mel ni lekk xalali jàmbur ak lu ca xaju yooyu yépp ñi ba ko li nga fas ak sa morom ci wàllu pas-pas bu mën a doon ci liggéey mbaa ci liggéeylu yow mii liggéeylu la nga wax ak nit ki matal ko yow muy liggéey engagement bi nga jël mat matal ko pas-pas bi nga fas ci digganteeg soxna ci sëy ñaan ko waajuram mu jox la ci mu laaj la can wuti seede ñi fas ko yoreel yore bu rafet boo mëntoo te yore dellooxal fa imsaakum bi maaruf aw tasrihun bi ihsaan li nga fas tabaarakallaahu ki sa xol bi mu ngi nekk sa bopp fexeel mu wér nga fas wéetal yàlla fas bëgg yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama fas bëggal sa morom nit ñi li nga bëggal sa bopp bañ a fas iñaan bañ a fas soxor bañ a fas ak rëy bañ a fas ak bëgg àdduna ak darajaak ak parparloo yooyu nga xam ne dafay yàq kon mboolem xeeti pas-pas yi ñu yàlla fas loo yeg ñett la li dox ci suñ digganteeg moom ak li dox suñ digganteeg suñ morom ak li dox suñ digganteeg suñ bopp loola nag dem na ba ci sëriñ bi nga ñëw forcé wut la nga xool ko mu doy la lam yore doy la nga tal ko loxo ne ko wirdo laa bëgg mu wax la charta ya doo ko bàyyi doo ko booleeg beneen doo ziyaare benn waliyu bu ci bokkul ziyaare ak tëbbu doo bañ benn waliyu dee ko def suba ngoon day wasifa ca mbooloo ma nga ne d'accord naa fexe lool tamit nga matal ko nga ñëw gisab sëriñ bu la doy sell lool nga ne ko damaa ñëw fas ne jébbalu ànd ak yow ci liggéeyam yàlla bi loo santaane danaa def loo tere danaa bàyyi ndax doy nga ma doy goo xam ne xam naa ne doo ma sant lu ma yàlla santut doo ma tere lu yàlla terewut bëgg naa la doyloo naa la ci li nga nekk ak li nga yor kon tamit loola nga jaayanteeg moom ca loola fexeel mu mat loolu lépp dugg na ci aw foo bil uqud entreprise yi fexe seen employé jël nañuy matal seen xàq ya ñooñu tamit nekk ay emploi nañ fexe di matal heure ya waxtu dugg waxtu génn nañ fay nekk di liggéey bañ di jaay mbaa ñiy xarmat boo bëggee xarmat taamoo sémmañ wala am nga amee sémmañ wala ëpp doole mën na laa andil problème yooyu yëpp nañ ko bàyyi moo taril suñ société bi ku ñu jël di ko liggéey loo na xem ci lañ koy fay bañ a lekk nger ci pas-pas yi la bokk waaye ne yaa ngay laaj leneen te yow fay nañ la bu weer dee nga fayeeku loolu lépp baaxut koo wax ak tamit ne ko la 15 laay fay bu la 15 jotee ñaq na fay ko boo ne par journée laay fay bu wàccee ñaq na boo ne par weer laay fay bu weer wa deexee ñaq na te yonent bi ma ne aatul ajira ajrahu qabla an yajufa araqahu yooyu yëpp ñu bàyyi ci xel yaa ayuha alladina een gaa nga xam ne amanoo gëm nañ alquran aw foo na ngeen matal bil uqudi ci pas-pasi kóllëre yi bi dox seen digganteeg seen borom mbaa mu dox seen digganteeg seen morom mbaa mu dox seen digganteeg seen bopp fas leen yépp te matal ko bàyyi na wax jooja léegi nag loolu mu fas mbëmbëstal la moom la fas yéene nag farañ fànce ko li nga xam ne dañ koo fas ak suñ borom mu tinki ñu ca ñi war koo def ak lim ñu tënk ñi war koo bàyyi loolu la bëgg nag commencé farañ fànce ci aaya ji tegu ci moo tax sama borom ne uxilat daganaleef na làkkum ñeel leen bahimatul an'ami bahimay juri kër yi géléem ñëw ak nag ak xar ay ak bëy daganal na leen ko ngeen lekk ko gannaaw ak rendi illa maa yutlaa lu dul loo xam ne def na jàngatal aleykum ci yéen te loolu jàngatal nga waxut ko fii waaye dana ko wax ca kanam muy xurimat aleykumul maytatu muy méddëg la ci aju xayra muxili saydi te mbir moomu dugu du leen way daganal ak rëbbu fekk wa antu mbir moomu yéen xurumun way xaramal ngeen ci xaj mbaa ci umra inna laa naka yàlla yax ko mu dana xatte maa li mu namm daganal te kenn du delloo ab xàtteem kon yàlla ne daganal na ci ñun ñi lekk bàyyi may kër yi bu ñu nag bahimatul anaam fuqaaw yi ñu ngi ci namm xar ak bëy ak nag ak gëléem yii lañuy tuddee bahimatul anaam gis nga jël na bahimatu ji daafal ko anaam ngir leeral mi ngi mel ni nga ne rek ka saw bi xasin yére bi yére xasu la maanaam sawbun min xasin ay bahimatun min anaam waaye tamit jël na bahimatu ji mu fratal ko defut ko muy jamoo pour bëgg a wane ne mi ngi ko tënk nag ci juri kër yooya nga xam ne mooy juróom-ñetti xeet samaaniyatu azwaaj min a dëni snayni wa min al maxsi snayni ba juróom-ñetti xeet ya mat wane na ci loolu lañ ko tënk juróom-ñetti xeet yooya nga xam ne jiitaloon nañ ko ca suratu ala imran ibnu omar ak ibnu ak ibnu abbas ak kudul ñoom ñaar wax nañ ne bi yàlla ne daganal naa ba bahimatul anaam déggee nañ ca ne bépp gàtt buy xar wala bëy wala muy nag wala muy gëléem gu ëmbee doom ja mat ca biiram nga rendi yaay ja rek rendi nga doom ja mën nga koo lekk li tegtaloo xadis bi yonent bi ne anna zakata ummihi zakatun la abu daawud ak tirmisi yu ñoo génne xadisu ibnu maaja bu bokk ci xadisu abi said su ko defee tamit kon loolu mooy bahimatul an'am aaya yi tamit ci ngay déggee léegi léeg nit laaj naan waaw nag yi éléwaas yi moom xam ne dañ leen a pompe ndax daggan nañoo lekk su ko nit waxee ñaareel ma lay tontu wax yàlla day wax rek ba uhilla lakum bahimatul an'am daganaleef mi ci daganaleef na ci yéen daal bàyyi maay juri kër yi bàyyi may juri kër googu dagal na nag lu mu nekk lu mu lekk comme bàyyi ma la rek jeex na lu mu lekk nag mun koo génnee ci jëmmi bàyyi ma ja kon dana dagan ñu lekk ko moo xam dañ koo pompe ci ngooñ mi wala ñu pompe ko ci ñax mi wala ñu pompe ko ci seen jumtukaay yooyu ñu am en tant que daal moom ma ngi nekk bahimatul am rek ñun lekkaloon nañ ñu ko kon yooyu yëpp yàlla xatalut moo tax tamit bëggul ku xatal bahimatul anaam moo nekk noonu kon mën nañ koo lekk muy bépp bàyyi ma boo xam ne Omar ibnu Xataab nee na mooy bàyyi ma buy boroom ñeenti boroom ñeenti tànk borom ñeenti tànk xar bëy gëléem nag yooya nag dugalaale nañ ca yi nga xam ne dafa nekk borom ñeenti tànk te dagana lekk lu mel ni kéwél yi yu mel ni nagu njaaxal yi lu mel ni eh, maanaam mbaami njaaxal yi mbaam àll moomu di yàq gerte dagan na dañ koo sib rek waaye mbaam àll mi nga xam ne moo am tere ya ñu koy génne ci documentaire yooyu yooyu ñooy yi xaraam waaye dugut mii kon bahimatul anaam yooyu yëpp dugg na ca su ko defee nag euh, sallallahu alayhi wa sallama leeral na ko ca loola waaye na bam ne bahimatul anaam anaam mooy juri kër mooy yooyu ma wax la su boobaa na ci mazhabu Malik fas bokkut ca euh, euh, Shaafi'i na ca la bokk mbaam kër bokkut ca Shaafi'i na ca la bokk ala kulli haal tamit bax la bokkut ca ci bu Malik imaamu Shaafi'i moom boole xaale na ko ca euh, um, boobaa nag bahimatul anaam bu fekkee xar la rendil buy nag rendil buy gëlëm lojal dañ koy loj loolu la xalil wax waaye nag kenn du ko reen rendi dañ koy loj taxawal ko rek di ko dëbb ndeysaanam ca pëtëx ya ba mu daanu nga lekk waaye bahimatul anaam googu nag li muy dagan dagan boo xasee nekk koo xam ne dangaa xarmal yooyu daganoon la ci juri kër yi ñu wax la ko yi daganoon ci anaam yi lu mel ni kéwél ak nagu àll ak bodoom ak ya ca xaju boo xasee xarmal dafa lay xaraam nga dem di ko rëbbi daganut daganut nga di ko rëbb moo xam ca xurum ba moo xam ca xilla ja comme xas nga xaraam rek xarmal rek xaraamal nañ la rëbb rab way ko jug jéeri moo tax mu ne ilaa maa yutla aleykum fekk na xayra muxili saydi fekk wa antum xurumun yàlla nag mooy xàtte la ko neex te lu mu xas xatte kenn du ko wax lima xatte boo déggati duwut yàlla duwut yonent bu la nga ne en tout cas man déggewu ma ko noona waaye yàlla bu xasee wax nag héehée en tout cas amatul fa amatul fa amatul fa place léegi nag mu continuer ne wa ida xalaltum bahimatul an'am yàlla xaraamal na ci yéen su ngeen xarmalee ngeen ni rëbbati aaya ji tofal na ko ci sababu nusul ba nag mooy kuñ daan tuddee xatamu bokk ci bani rabiata dafa ñëw fekk yonantu bi ca madinatul munawara mu ne ko dama lay laaj lislaam bi la yàlla yónni lan la yonantu bi solo mu ne ko damaa ànd ak ay kilifa mën naa am danaa tuub waaye danaa wax ne ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan bi ne ko gannaaw loolu da ngay julli te da nga joxe asaka ba mu waxee mu ne ko li nga wax de na waaye damaa ànd ak ay kilifa duma mën a dogu ci mbir wëlis leen xamaat na man danaa tuub waaye nag danaa leen taxawal ma dem ca ñoom maa ngi ñëwaat fekk yonent bi kenn du moom avant muy ñëw yàlla wan na ko ko moom tamit mu wax mu wax saxaaba yi mbiram waa jooju te fekk waaja ñëwagut kooku nag ndeysaan déparé fa wane gannaaw ba mu demee rekk fekk gétt saxaaba yonent bi ca gëléem yaag xar ya mu rungu yëpp yóbbu ca déwén sa nag saxaaba yi di xaji xajjatul widaax gi ànd ak yonantu bi gis ko ñu ne yonantu bi xatam mi ngi nii moo jëloon suñu gàtt ya tee nga ñëw dimbale ngi dal ci kawam yonantu bi ne leen déeréet bàyyi leen ko ak lu bonam loola nga xam ne def na ko màngoon seen fas yeeg seen gàtt yi yóbbu ko bàyyi leen ko léegi nag ndax diine gi du diiney fayantoo lu bon te bañ ko gis tamit ma nga xarmal xaj jël ay hàddiyoom hàddaayaayam war a yóbbu ca kaaba ga ràngal leen ndax hàddiyu dañ ko daan ràngal yi dañ takkal dàll pour man leen a xàmmee ku leen gis xam ne kenn du leen gaarlu lii ca kaaba ga la jëm aaya ja wàcc nag di wax ak yonantu bi ak saxabaam ya moo tax mu ne yaa ayyuha allazina ee yéen gaaye nga xam ne amanoo gëm nañu alquran laa tuxilloo bu leen daganal sha'airallaahi mandargaay diine yàlla ji te mooy rëbbu ci waxtu xarmal wala shahra bu leen daganal xeex ca weer wa xaraam ba bu ñu xormaal weer wi yàlla xormaal ko bu leen ci daganal xeex wala la hëddiya bu leen daganal gaarlu hëddiyu bi jëm ca xurum ga walal xalaayida du caakeen borom mag ràng ya xalaayid jam ko xalaadatin wala wala amina bu leen bu leen daganal ñi nga xam ne dañoo jublu albayta ca kaaba ga xaram ba bu ñu xormaal bu leen daganal di xeex ak ñoom na fekk mbir moomu ña ngay sàkk ñoom fadlan wërsëg min rabbihim ku bàyyi ko seen borom ci yaxantu wa ak ngërmande moom ci liñ wax waaye ab xéeféer mën taxam ngërmande wa ida xalaltum su fekkee ne xewee ku ngeen nag ci xor ci ci xarmal fastaadoo na nangeen rëbb amari ibaaxa la kon lii la leen yàlla wax defal nañ leen lu bon waaye bàyyi leen ko bu leen fayantoog moom bu leen gaarlu ku yore hadiyoom jëm ca kaaba ga ngeen koy nangu bu leen gaarlu ko xarmal jëm ca kaaba ga ci weeri xaj yi muy wori digg tabaski ngeen ni da ngeen bëgg a xeex ak moom wala ñeenti weer yi nga xam ne weeri xurum la bu leen ca xeex yooyu yëpp bàyyi leen ko rekk su ngeen demee nag ba yàlla may leen ngeen xeweeku ci xarmal su leen neexee man ngeen rëbb rab way koju jug jéeri giñ leen aaye woon waaye feeg yéen a ngi xarmal nag bu leen rëbbu rab rabu ko jug jéeri su ngeen gisee tamit ku dëgmal ca kaaba ga te tooñoon leen démb bu leen dal ci kawam ngir fayu tooñaange yooya weer wi laajut ko bis bi waxtu wi waxtu wi laajut ko place bi tamit laajut ko comportement wu ki ngeen bëgg a fayu ci moom tamit melokaan wam am ta mooy xarmal jëm ci aj laajut ko lii laaya ji jàngale waaye bu ne wa ida xalaltum fastaadu amar gi amaru ibaaxa la tekkiwut ne saa yoo xewee koo ci xarmal rek nga war rëbbi far force déeréet waaye fa bëgg wax ne boo xewee koo ci xarmal rëbbu dagan na la dañ la koo teggiloon waaye léegi dagan na la bu la neex nga dem defi ko moo tax amar ji amaru i baax la ndax noo koy xamee lépp loo xam ne dafa laa daganoon ba dara xew agut xam lu gaar si ba tax yàlla xaraamal ko la gaar si noona bu teggee ko mbir ma dafay delluwaat ki cosaanam ca dagan nga xam ngeen ni rëbb naka jekk dagan na rëbbu rab wu dagana lekk nga rëbb ko ngir lekk naka jekk dagan na ci jamono yépp ci place yépp yàlla nag am lu gaar si tax mu xaraamal ko xaraamal ko ca xurum jë muy màkkaak ñeenti côté yi yonentu piqueté woon ne fii la xurum ji am waaye tamit euh, euh, loolu mu xaraamal ko ca su fekkee da xas xarmal nag xaraam ba gën a yaatoo ci loola mooy fépp fu rab wa man di nekk rek moo xam ca xurum ja moo xam ca xilla ja rëbb ko xaraam na la comme rëbb ah, comme la kon loola nag bu xasee teggee ko li taxoon ñu xaraamal ko ci yow mooy xarmal gi xarmal gi ko na kon day delluwaat ci cosaanam la muy dagan nga kon lépp loo xam ne cosaanam moo doon dagan am lu gaar si ba tax yàlla xaraamal ko la gaar si bu xasee dàqu dafay delluwaat ca dagan nga moo tax mu ne wa idaa xalaltum boo ko bëggee dégg mi ngi mel ni dem di sàkku ji wërsëg ngir dund dundal sa njaboot liggéeyal sa réew naka njëkk dafa dagan ci waxtu yépp waaye nag boo demee ba xas dugg ci julli soobu ca xaraam na kon nag lu ko tax a julli gi gaar bu julli ga jeexee ba nga xas sëlmal dagan na moo tax mën na fa ida qudiyati salaatu fantashiru fil ardi sa soxna si nga soxla ko mu soxla la ngeen ànd jonjoo dagan na ci jamono yépp waaye yàlla nag am lu gaar si mu tax mu xaraamal ko lu gaar si mooy koor gi bu koor gi ñëwee ba bëccëg ba xaram na ngeen di jonjoo boo xasee xarmal xaraam na ngeen di jonjoo fekk bay liggéey ba di jeexee ba demee nag ba yooyu yëpp jeex yàlla ne fal aana na kon gis nga ko amal gi tamit baax la ndax kat cosaanam moo doon dagan am lu gaar si mu xaraamal ko la gaar si bu xasee dàqu dafay daganaat dellu ki cosaan la sa soxna si dagan na la jamono ju ne lu dul mu yore reegal bu yoree reegal nag war a mu yore deretu gësin xaraam na ngay sëy ak moom kon nag loolu gaar si bu xasee dàqu dagan na nga sëy ak moom moo tax alquran na fa na tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah kon daal ci ulamaawu usul amar june ma ngay tegtale cosaanam rek cosaanam su fekkee lu daganoon la am lu gaar si tax mu xaraamal ko la gaar si woon bu dàqoo rek dafay mujj daganaat su fekkee ne nag lu xaramoon la carrément mu tere ko ba tey bu ko teree tamit dafay dellu ak cosaan la rek xam nga tey eh, yàlla dafa ñuy tere bu ñu duggee ci weeri xurum yi weer yi nga xam ne yàlla dafa koo xormaal ñi ñeenti weer yooya kenn du ca xeex waaye nag bu ñeenti weer ya jeexee rek demal nga xeex xéeféer yi foo leen fekk rey leen kon rey xéeféer bu weddi yàlla weddi yonantu bi bañ ko dafa nekk lu dagan dafa nekk lu war ci jamono ju ne waaye nag bu ñeenti weer yi garse comme asfarul xurum la xeex ak ñoom xaraam na kon la garse woon bu xasee dàqoo xeex ak ñoom dafay nekk di lu war moo tax alquran ne fa isan salaxal ashhurul xurumu faqtulul mushrikina kon bu weer ya follee rek dellu leen xeex leen ak xéeféer yi ngeen rey leen kon ndeke cosaan la dafa nekkoon di lu war am lu gaar si te mooy ñeenti weer ya ba taxoon ñi teggi ko kon bu ñeenti weer ya jeexee cosaan la dafay delluwaat ci cosaan la moo tax mu ne faqtulul mushrikina kon amar jooju yadullu alal wujub moo tax timit noonu nga koy déggee nag ci amaru karahiya noonu nga koy déggee tamit ci maanaam ibaaha ga ca wujjóob ga ca xaraam ga yëpp noonu nga koy déggee ci lamar rek loolu rek nga koy déggee na cosaan la meloon daal bu taxee ñi teggi ko ngir lu gaar si su ñëwee rek dafay delluwaat maanaam ke cosaan la ah, moo tax boo demee ca maraaqi suud téere la bu baax buy jàngale mbiram usul dafay wax ne wal amru lil wujubi ba'da al xatli wa ba'da su'alin qad ata lil asli an yaqtadi ibahatan lil aghlabi ida taallaqa bi misli sababi kon yooyu yëpp mi ngi ko ci jàngale nga mën koo xam kon aaya jàngoo ko yaa ayuha alladina ee nga xam ne amanoo gëm nañu alquran laa tuxilloo bu leen daganal sha'airallaahi màndargaay diine yàlla ji te mooy rëbbu ci waxtu xarmal wala ngay rëbbu fekk yaa nga ca xurum ja walla sëhra bu leen daganal xeex ca weer wa ca weer ya alxaraam ba de bu ñu xormaal bi maanaa ashur wala la bu leen daganal gaarlu hëddiyu meew xam ne borom man ko màng jëmee ko ca kaaba ga ngir lim leen defoon démb walal xalaayida bu leen daganal tamit ba tey gaarlu hadiya yi nga xam ne borom mi ràng lañ bu leen leen gaarlu wala bu leen daganal amin yi na ñi nga xam ne way jublu lañ albayta ca kaaba ga xaraam ba de bu ñu xormaal bu leen daganal xeex ak ñoom yebbu taxu na mbir moomu ña ngay sàkk ñoom ñooña fadlan wërsëg bi mu gu bàyyi ko seen borom ci yaxantu wa ridwaanan ak ngërmande ca lañ wax waaye ku weddi yàlla foo jëlee ngërmande sa pas-pas a baaxut te sañ Moussa Ka dafa daan wax ne bala nga xam ne pas-pas a baax ngay wañ ngay ñaw fàttee fas wëñ nga soo xëccee rek la nga ñawoon lépp topp la kon ab xéeféer bu gëmut yàlla xalaa kulli xaal lu mën a def ci lu baax tamit du am compte numéro compte am ba moo baaxut moo tax lu mu ca mën di denc tamit du mën a valider ca compte ba bu yow yowmal qiyaamee du fekk dara yàlla dencal ko ko wa qaddimnaa ilaa ma amilu min amalin fa ja'alnaahu habaan mansuuran compte ba baaxut ngir pas-pas ba kon gis nga ko waaye nag bu compte ba baaxee sa pas-pas baax rek loo def ci lu baax danga fekk yàlla dencal na la ko fa kon aaya jàngoog di xamle loolu waaye tamit aaya ji mu ngi xam le ne xéeféer daraam baaxut ndax pas-pas bu baaxut dara nekkul ca waaye sax ñeen nañ ñu ne aaya ji folli nañ ko maanaam euh, walal aaya ji ma jàng léegi yëpp taxu na fa lame rek warit waanin warit waanan way daal dafa staatu ñu ne follee nañ ko ca suuratu baraa ayatu baraa moo ko folli fekkee ne danga xen nag sha'aira laay ci màndargaay diina yàlla ji moom ba tey baaqiya day des waaye boo ko xenee ci ku xarmal su boobaa dafay nekk di luñ folli ndax mu ngi wàcc ci njëkk amal fat yi lee nag moom ca fatu màkk la wàcc ñëw dindi fa la fa njëkkoon a nekk waaye tamit aaya ji tegtale na yonantu bi kenn du moom ku ko fayee lu bon bu ko lebal lu bon lu baax la lay fayee diine ji diine yi ku la lebal lu bon nga fayee ko lu baax la du diine yi ku la lebal lu bon nga fayee ko lu bon déedéet xoolal tey kii lim def ci lu bon def ko saaba yonentu bi yonentu bi sallallahu alayhi rek ne leen bàyyi leen ko jamono ji laajut ko place bi laajut ko comportement bi laajut ko kon gis nga ko wax na moo tax keroog ba mu demee fatxu màkkata ndey saanam ñépp ñu ko doon def lu bon rus ci kanamam toroxlu ndax not na leen mu ne leen lu ngeen yaakaar ne moom laa leen def ñu ne ko yow de ku baax nga mbokk mu baax nga di doomi mbokk mu baax mun leen izhabu antumu tulaqa ana qailun lakum kama qaala aqi yusufa li ixwatihi laa tasriba alaykumul yawma yaxfirulaahu lakum moo tax bu sëyru ne wala wantiqaamuhu li hawan nafsi la daamat xatiatun wa jafaa yonent bi su fekkoon ne ak fayoom da koo teg ci bànneexu ba kanam mu dog mbokkam yépp dog xéeféeri màkk yi waaye nag ndeysaanam ku ko lebal lu bon lu baax la lay fay ndax moom xamul lu bon kenn du yonent bi ñépp ko ci war a roy nag ci makaarimul axlaaq yu am doole yu am solo yooya te jikkoo woon ko xam nga wax ne tamit ne wala al hadiya wala koo kay wax dëgg yàlla xatful xaas alal am rek la ndax xalaa it ba tey mooy hadiyu waaye boo gisee mu tudd ko tudd hadiyu par daal tudd tudd tudd maanaam xalaa it yañ ràngal ya dañoo bokk ca ya gën a tedd ci hadiyu yi hadiyu mi nga bëgg a rendi ñaari façon la am na moo xam ne xéene nga ko rek maa nga jëm màkka waaye wana woo benn màndarga bi nga xam ne da nga ko wutal màndarga nag jëlloo takk ca doq ga benn mu nekk aw dàll moom lañ ko daan def wala nga jël benn xàncal garab takkal ko ko wala nga jël buum takkal ko ko kooku nag moo gën a tedd ndax moo gën a war a màndarga ne lii jëmut ci kenn ca néegam yàlla ba la jëm moo tax ba mu tuddee rek mu ne walal xalaayida